am nañu yaakaar bu baax a baax wax dëgg yàlla ndax euh, du ma noppi wax ni ñun ñooy le premier pays le premier parti au Sénégal te loolu waru jaaxal kenn parce que loolu moo am euh, dañu am une forte représentativité ci biir réew mi à travers les quatorze régions am une forte représentativité au niveau de la diaspora te li ko firndeel mooy élection yi passé gaje dañu jaspora bi gañ tam siège yu bëri bëri au niveau national euh, en 2019 ci la njëkk def les tests euh, sur euh, le parrainage kenn ku ne xam nga ni PDS dafa dafa jéggi woon barrière u parrainage bi dañ ko jéggi woon ndax dañu amoon ba mu mat ba desal kenn kenn recalé wuñu